moom lay bëgg a joxe ndax jàkka ji bi nga xamee ne Cheikh Saliou Mbacké naaloon na ko ca pàkk bu njëkk ba ba yàlla def barab bi ñëw bi mu dikkee barab bi yaatu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké agsi dugal ci institut islamique recherche di Cheikh Ahmadou Bamba ak salle de conférence boo xam ne war naa mat ñetti junniy place ak juróomi téeméer moo nekkoon ci plan bi xam ngeen ne biñ koy tàmbali noonu lañ ko waxee ba yàlla def jotuñ koo tàmbali tegoon xeer wi ak Cheikh Sidou Mokhtar ñëw ñu tàmbali liggéey bi ba liggéey bi sori ba doon bëgg a tàmbali sax salle de conférence bi ak institut bi Cheikh Sidou Mokhtar wax ne nañ fexe ba jël liggéey bépp jëmee ko ci jumaa ji ba mu àgg lu ci dolli ko door ci dolli ko kon loolu moo doon ndigal la ndigal nag bu agsee ci taalibe waratoo ci am xalaat waratoo ci am bëgg-bëgg moo tax fa sens rek lañ ko daal di jël ne ko tegg fi suuf amatuñ ci benn xalaat ba yàlla def ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Diop moom it yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu agsee dégg ngeen lam njëkk a wax sama yitte jëpp maa ngi ko jëmee ci daare Cheikhul Khadim ci mu université ba muy tabaxal Serigne Touba ca Touba. kon Serigne Touba ku ne ak lam la liggéeyloo ndax naan la fi waxoon ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko tàmbali woon Serigne Saliou ñëw àggale ko ba ñu ubbi woon ko bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëwee nag ne sama yitte yëpp ak sama xalaat yëpp mooy daare Cheikhul Khadim ji laa fa séenoo sumb ba mu àgg liggéey ba nag ñëpp xam nañ ne ñagate kon ni mu ko soññee woon ci màggal gi rek na ko ñëpp xame noonu li fi liggéey bi àggul rek. na ko taalib yi xam ne lépp seen jëfe ko war a def nit ñi nag la sëriñ Saliou Mbacké daa wax rek joxe bi dafa jiitu laaj bi kon seen yitte ak seen pësef ak seen bëgg sëriñ Touba kenn nattab ko ndax liggéey sëriñ Touba kat dañoo jaay suñ jëmm jaay suñu alal ngir jënd ko ngërëmu sëriñ Touba muy la suñ borom waxoon ci alxuraan ci digg saxaaba yi ishtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كونك كسوك جبل تياك سرين توبا نغا خانا سلب سرين توبا كون كون ورونيو دنتال دار ألك نغير خمني دنتال ألك لفقن مويل القرآن سنتاني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كون لولو mooy jixaat ci sa alal ak sa jëmm kon nag xam ngeen ne jihaad ci jihaad ci sa bakkan amatut kon li ci mooy jihaad ci sa alal kon nañ xam ne alal ji jëriñu dara lu weesu terloo ak suturloo la ci ëpp solo nag mooy la ngay denc ëllëg ndax loo fa loo fa faggu ba léegi doo ko fekk kon la sëriñ bi waxoon rek doomu aadama ñaari biir rek ko saq biru jemam je ak biir bamel mune biru jemam je ji item muy ndax yàlla mi ko mu wax ko la fa def la fay jëm wa min dabatin fil ard illa ala allah risquha mune bir bamel ak nay item ndax lu mu fa def du ko fek kon nak li ñi jëf ngir seigne touba di ci yaakaar ak payam ëllëg lola moy li ëpp solo ñun kon seigne bi neena mi ngi ci wa ndigal kon seigne bakki bo boo fi na nga set noko dal tambalé tàmbalee ngir xamné bu sëriñ bi jàppee dat bi waxtu moo xam nag na koy jàppe dana ñëwal boppam ñu woote ko mu teg xeer wi taalib bi yëpp sóobu ci ànd ko moom waaye ci diggante bi nag kon ab taalib bi moom du xaar dangeen ngeen ko daal di tàmbalee waajo lu ci waay man nga tàmbali ko ngeen xam ne liggéey bi dafa yaatu ba ca di mooy liggéey boo xam ne wërta taxaw ndax jumaa ji xam ngeen ne li ko tax bari na kon moo gën a jafe fuuf entretien bi waaye entretien bi yombut ndax xam nga ni jumaa ju toll nii li ko waa entretien lu ci yàqu ñu defaraat ko lamp yu lakk ñu soppi ko ak facture courant yi jumaay Tuubaa ji ak kër Sëriñ yi rek Cheikh mun Mountakha ñaari weer yu ne mi ngi ci fay 40 millions fi mu toll nii kon xam ngeen ne loolu du liggéey bu tuuti fii nag yéen ñi dëkk Dakar yéen a ko war a def kon ci biir loolu xam ngeen ne li fi war bari na kon taalibe yi nañ ci gën a tàmm tàmbulaat di jëf bu ci daa jëf ba liggéey bi ak si fii na nga daal di tobbaat saw sas loo ci defoon benn nga yokk ko ngeen xam ne li fi war bari na te sëriñ bi joxe na ndigal muy imaam ak ñu topp ci moom ñu defaral leen ay kër ci fu jege barab bi ngir seenu nekkin ci barab bi mën a yemb loolu lépp nag sëriñ bi moom joxe ndigal la war a def waaye kon yéen taalibe yi nag ñun talibé sax nañ xamné lépp suñu wartee fa ndax kenn defalut seigne touba lu ko gënal li kon nak buñ jógee ci jotaay bi rek na ñëpp tàmbalee waajal lu ci way man lo man ak lo mënu nga def ko ci ngeen xamné lo ci def rek dañ ci dajé payu yàlla dañ ci ca dajeeg seigne touba ta waridu wa ridwaanu minallaahi akbar zalika huwa al-fawzul azim والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته